mbokk yi ak xarit ñooy nuyu di jaajëfal euh, si teewlu bi seen émission face to face am mbégte dellu si te nag ma am mbégte bu rëy rëy rëy ndax euh, dama invité kenn koo xam ne maax moom yàgg nañu Leewtoo depuis euh, plus de dix ans peut-être <laughs> depuis alternance ba ma xëyee ba léegi ñu waroon def émission buy yàgg mais comme dafa xaw a tàng. Euh, man tamit xëyee na sedduma trop donc ñu ñu ñu ñu ñu ñuy kii ba léegi ñu dem ba nekk ay xarit man ak moom ci ci xulóowanteeg yu mel yu mel noonu mais euh, euh, sénégalais yi xam ngeen ko bu baax te li tax ma jubóog moom léegi mooy ni mu mel ci jukko mooy constance bi ak am fit bi ak surtout ñeme dëgg ñeme dëgg boobu nag defe naa moo tax mu am benn particularité Euh, ci euh, euh, espace public bi bëgguma wax espace politique mais espace public bi mu nekk ci benn identité remarquable boo xam ne sénégalais yi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ndax bu ñu waxee moom moo njëkk a théorisé mandargalee ko parti politique tuddee ko alternance générationnelle AG jot na léegi sax mi ngi bëgg a soppi tur wi xëy na dina ko waxtaan ak yéen ci biir émission bi Euh, donc mu mel ne euh, moom euh, teel na comprendre ne Sénégal dafa nekk ci ay mutation yu am solo mais surtout Sénégal dafa soxla am ay njiit ay kilifa yoo xam ne dëgg moo leen tax a ñor dëgg dëgg moo leen tax a jóg dëgg la ñuy doxee te lépp lu nu bëgg mooy Sénégal jëm ca kanam moom nag muy metre Moussa Diop ngeen xam ko bu baax ci espace public bi xam ko ci am fit xam ko ci am fulla xam ko ci ñeme dëgg euh, ay émission yi ñëpp da ngeen koy wër man mii sax dama koy bien bien que dañu doon xuloo tout le temps ci xuloo la ñu nekk man ak moom dama doon wër fu <laughs> ñu invité. kon ma am plaisir bu baax nag euh, invité ko muy euh, avocat ci barreau Paris nekk kon ki nga xam ne Dakar Dem Dikk defe naa yàgg na am ay directeur général waaye fàttewuñu Euh, maître saa Diop ba mu yoree euh, reenu société bu mag boobu nga xam ne ku xëy suba ba ci man mii sax foog nga taxaw xaar Dakar Dem Dikk euh, bokk aussi ndax mu ngi fa bokk ba tey loolu tam beneen laaj la ci coalition Yewwi Askan Wi gars yi xaw ko dëbbali ñaan xaw am nuñ ko nangañee ba investir ñu ko loolu yëpp daal lañ fas yéene waxtaan ak moom te donc maître Moussa Diop Euh, mbégte bu baax la ci mag la ci man ak bànneex ma invité la ma bàyyi la nga nuyoog Sénégal yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan di la déglu euh, euh, di la jaajëfal encore une fois ni nga nangulee suñu invitation yaa ngi koy doog a nangu nag mosoo nangu suñu invitation. <laughs> jërëjëf ay Aïssatou maa ngi lay nuyu di la sant. Mm-hmm. di nuyu sénégalais yëpp yu ñuy seetaan. Mm-hmm. ci Sénégal ak bitim réew. Mm-hmm. di nuyu samay njaboot. politique sama njaboot naturel. Mm. samay doom yi mu ngi seetaan. Mm. mais di nuyu également ñëpp ñoo xam ni dëgg moo leen tax a jóg. Mm. parce que dëgg fu mu la fekk na la fa bay. Mm-hmm. bu la nguur ràngati. Mm-hmm. mais ay surtout balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. Mm-hmm. danga may permettre rek ci fi ñu toll. ci réew mi. di masow li nga xam ni. xew na Tiwaawan. Mm. mercredi ci guddi. Mm. ba ay nourrissons ay tout tànk. Mm. ñàkk ci seen bakkan dans des conditions yoo xam ni. atroce. bu doyul ëpp na waar. Mm-hmm. ñu ngi ciy jaale seen famille. Mm-hmm. di si jaale le xalif général des Tidianes. Mm-hmm. di ci jaale Sénégal yëpp. que lu mu ñu mu metti bëri na mm-hmm. mais lu am solo mm-hmm. mooy il faut que ñuy jàngat lu bari mm-hmm. ci li nga xam ni am na bërki démb maa njëkk def dara sénégalais bëgg na ko loolu mais di ko entretenir moo ëpp solo njëkk naa def lii njëkk naa tabax lii njëkk naa def lii c'est pas le plus important lu am solo mooy nga koy entretenir ba li xew bañ a am bañ a amati ñun ñëpp ñu sommes très choqués ñu ngi ñaan yàlla xaral leen aljana amiin yaa rabbi parce que ce des innocents mais aussi nee nañu ku dem ku génn àdduna ci condition yooyu aljana doo nga mën dem wallaay rawatina ngay tuut tànk doo gane si àddina mais lii yëpp mënoon nañ ko mënoon mënoon mënoon nañ ko moytu mu bañ a am. Mm. pourquoi daaw dégg nga Linguère. Linguère 4 bébés. 4 bébés dans les mêmes conditions. Mm-hmm. taxul ñi ñi jël ay mesures yu ñu war a jël. même su fekkee am na ñaayu xam ni pour man maquillage la. Mm-hmm. ñu ne denn waay mm-hmm. gis nga ni Louga lu fa xew. la dame bu décédée. dans des conditions atroces. ñu indi coow. ñu indi benn verdict d'apaisement. ñu jógee foofu barki démb ñu ni Kaolack. ñu for bébé ci biir carton bu doon dund. nga ni déet na waay. lii dikkati. le 3 mai dernier. ci bébé yi décédé barki démb kenn seen yaay. madame Diallo épouse Guèye. ci la décédé. ci teewoon. ci césarienne. doom ji la ñu defoon ci parmi les bébés. doom ji tamit gis nga ce qui est arrivé métti na pour certains. ñu ànd ak yow rek euh, jébal suñu njaal euh, njaboot yu euh, tout tànk yooyu gane si àddina génnee àddina. Hmm. ci anam yooyu di leen masaw bu baax a baax mais dafa da nga wax lu am solo loo xam ne foofu laa doon duggee. Hmm. mooy ci année bii ak année bi weesoo mhm. euh, yu mel nii dafa bëri ci hôpitaux yi mhm. te effectivement taxul ñu jël mesures yi war mhm. ndax bu ñu ko jëloon duñ ne lii dootu amati mais du demee nii ñu bëri si ñun ci euh, jigéen ñi nga xam ne seen doom yi euh, noonu lañ ko ñàkkee ñu si bëri bii mooy seen taaw xamuñu ndax dinañ amaat beneen ou pas ainsi de suite te soutien psychologique bi war duñ ko am Euh, amul benn suivi bu ci bu ci des ba pare euh, taxul sax ñu ñu jóg ne xaar ñu xool hôpitaux yi noonu donc maintenant aujourd'hui li li am am na. Mhm. Euh, président Macky Sall gis nga ko dàq na ministre ba. Mhm. Diouf Sarr dem na foofu. joxe na ay enveloppe ak yéen comme d'habitude joxe na fa ay enveloppe mhm. et tout nañu enquête nangam sàngam ainsi de suite fekk bu weesoo yi xew xew-xew yi mhm. yaa ngi gis ay vidéo yoo xam ne qui sont devenues virales maintenant yoo xam ne xalif général ba ci boppam teeloon na alerte alerté woon na léegi donc euh, est-ce que yii doy na qu'est-ce qu'il faut faire de de de de euh, vraiment euh, loo xam ne lu dëgër loo xam ne dina dina defal nit ñi nga xam ne dañuy am lu leen naqari wala war a accoucher jóg dem ñeme dem hôpital ak ñi nga xam ne personnel médical bi nga xam ne dañ fa nekk te tamit xamuñu ban du seen rôle lan la. Mm-hmm. ak enquête yi nga xam ne ay verdict d'apaisement yi ñu ñi nga xam ne moom la ñu xewal léegi ci réew mi est-ce que loolu mooy faj problème bi. Euh, à mon humble avis nag comme ni nga ko waxee rek loolu yenn yi nee naa léegi maquillage. Mm-hmm. maquillage mooy dàq ministre bu ñu demee ba le cas de Tivaouane parce que moom moo jàmp nii mu nekk agglomération boo xam ni ëpp na. cinq cent mille personnes. Mm-hmm. te fépp foo xam ne am na cent cinquante mille personnes. war na am war nga am benn hôpital de niveau deux. Mm-hmm. mu am cinq cent mille ba tey ñu bàyyi ko deux. moo tax xalif bi alerté woon na. Mm-hmm. chose bu fekkee ni dañoo am ci zone boobu. muy Tivaouane nit asma rek jot ko. mu ñëw pour uniquement am oxygénation. ñu ne masque amul mu mujj faatu. nit ñëw neen day joxe deretam. ñu ne ko amuñu ay poche fu ko def ñu ñëw ci niveau de amuñu sax extincteur. pour fay lakk. war nañu xoolaat suñu boppam. Mm-hmm. dama tamala na wax sànq maa njëkk a def ak tabax hôpital Sédhiou. Mm-hmm. tabax Tambacounda. Kédougou tabax euh, Touba. Mm-hmm. Euh, je pense que beneen bi vous voyez. maa njëkk def c'est parce que il faut entretenir il faut un suivi. Mhm. te d'ailleurs boobu Covid bi ñëwee la gis suñu plateau médical bi égal zéro. Mhm. tey ku feebar am alal yaa ngi jëm bitim réew. dëgg la. Euh, ku yi moom je ne parle même pas d'eux parce que mu la joxee benn ordonnance. Ah scanner à cent mille francs rek minimum. sa salaire nekk ay cinquante sept mille. Mhm. waxuma loyer ak li ngay lekk. Euh, sa njaboot mais xam nga c'est devenu catastrophique. bu rôle de l'État sur le plan social c'est d'être aux côtés des citoyens donc man li may wax mooy attention dem falu ji yomb na trop dem jëlee ay responsabilités yomb na trop mais buñ la fa tegee jox la jàkk ji na nga nodd ba ñëpp di feesal jàkk ji et non di ko vider. loolu am solo. loolu ma am solo. Euh, euh, Maître Moussa Diop bu weesoo euh, jëy yi am. Sénégal tamit brusquement euh, danga naan fii est-ce que du Far West wala jungle rey yu bari yi <laughs> euh, euh, te ay xale yu ndaw ñooy reyante lu ñàkk mel xool naa la ni ni nga xoolee neexuma. Mm-hmm. toj naa butéel jam la paaka nga dee. Mm-hmm. xale bee bëgg na ngénte jabar ji jabar ji nee na ko damaa bëgg sañ si takk joo takk lii takk laa def xew bu baax nga waaxu bu jekk dem rey kenn jël xaalis ba dem toog. Mm-hmm. façon Sénégal léegi rey bi nu mu gaawee. rey bi gaaw euh, euh, grâce gaaw da ngay mhm. dugg euh, prison léegi ay fête nationale buy ñëw tabaski baa ngi ne da gis tamit Macky Sall dina vidéwaat encore prisonniers yi yenn yenn dina dina mhm. vidé prison yi mhm. libéré ay ay meurtrier ak ay nangam ñu génn ci bi fees dell ci mbedd bi di agressé ak rendi ay nit et cetera bu ñu jógee naa dañ maa ndax xaw moon ni may grâce ak nangam donc loolu comment faire pour Euh, euh, euh, ki def lu rëy am lu rëy te voilà foofu daal laa laa am na kilifa diine bu ma doon wax. dóor ci defar la bokk. Mhm, dëgg la. dóor ci defar la bokk. te xëbal foog yar bu njëkk bi dal. Mhm. parce que boo ko yëkkatee nit ki moytu. xam lu muy saf. Mhm. état de droit dafa war a ànd également. di sanctionner. Mm-hmm. di def aussi ay mesures yoo xam ne dissuasion la. Mm-hmm. c' est pourquoi yaa ngi wax léegi affaire peine de mort. Mm-hmm. c' est que ñun les africains. on a fekk que subir. ay textes yoo xam ne mu ngi jógee Nations Unies nga xam ne c' est dirigé par les grandes puissances. ku nekk li la arrangé ngay dugal ci texte yi. comme yëfu borom ñaari tur yi. bëgg ko imposer nit ñi. loolu il faut que africains yi am seen fulla ak seen fayda. man depuis 1992 maa ngi. dund Europe. yabuma benn tubaab mais benn tubaab yabuma. nit day am ful. suñu souveraineté bi ñuy wax il faut mu am solo. surtout que je pense que d'ici année yi di ñëw suñu souveraineté boobu dana gën a mën a peut-être que économique. ñu ñaan yàlla te yëf yi soppeeku. li nga wax léegi lu am solo la parce que. Euh, affaire peine de mort boobu il faut ñu xoolaat ko. Mhm. il faut ñu xoolaat ko pour certaines infractions. c'est ça c'est ça parce que meurtre ak assassinat mhm. am na différence. Mhm. mën nga jàppante ak nit. accidentellement nga ba max ko mu daanu fu mu mbëkku décédé. mais loolu prémédité kooku prémédité prémédité woo ko. mais li nga xam da ko planifié. waaw planifié jël sa dem ñeenti yoon dellu si. waaw dem sa paaka denc. pour affaire aduna. ça signifie que dañoo jëlee léegi à la légère li nga xam alors euh, maître Moussa Diop euh, euh, euh, bi di AG jot na alternance jot na ñu ñëw nag ci volet politique gu émission bi dooree ko ak élection législative yi. élection législative yi yow nga ma fàttali ne jóge nga benn bokk yaakaar mi nga xam ne. 2012 ba tey yaa ngi fa woon di ànd ak euh, président Macky Sall mu denk la lu nga bokk euh, coalition Macky 2012 bokk ci euh, fondateur yi jiite woon nga ko fi sax mais surtout Sénégalais yi fi ñu la gën a ràññeeree mooy société nationale bu am solo bi Dakar dem dëkk nga jiite ko mais yamoo ci jiite ko da nga ko jiite ba pare nekkal nag président Macky Sall ci plateau télé yooyu moo tax li may wax tout le temps ne moom foo ko fekk mi ngi jooy naan aw ma ko ma défendre waaye yow de. Euh, sa yëre avocat xaw ma daan daan na la fayu fayu la nga sa yëre avocat moom <laughs> solo nga ko ba taay ci plateau télé yi donc nga jóge fa ci ni fa jóge wee nag ñëpp a ngay fàttaliku ci ne euh, wax sa xalaat ci troisième mandat bi jàpp ne euh, troisième mandat dañ koy bañ ci réew mi ak ci Afrique mm-hmm. waaw loolu nga ko théorisé woon te wax dëgg yàlla Euh, joxoñoo sa baaraamu tuuma kenn da wax sa xalaat de manière générale. Mm-hmm. sur un c'était un principe maintenant ba nga jógee Benno Bokk Yaakaar après ñu Yewwi Askan Wi sosu nga bokk fa. Euh, local yi ñu mel ne ku la pàdd ci local yi mañ la pàddee ci local yi ñu euh, achevé la ci législative yi mais comme yow nag doo béyu saraxu kenn mm-hmm. ku la bëgg a reen di yuuxu fu yuuxu boo xam ne <laughs> day arrêté. moo tax mooy lu nu gis euh, législative yi bala ñoo ñëw ci yeewu askan wi ndax foofu dama bëgg nga expliquer Sénégal ndax bëri wax ji bëri na te yow ma ca nekk yaa ñu mën a expliquer ce qui se ce qui se passe pour ñu comprendre mais damay ñëw tuuti arrière commencé par conseil constitutionnel décision yi mu joxe ci liste yeewu askan wi. Mhm. Euh, département de Dakar mi nga xam ne euh, non paritaire respecté wul parité. Euh, conformément ni ko code OFA waxee ñu dàq ko ak itam euh, euh, benn Bokk Yaakaar bi nga xam ne dafa am surplus de parrainage foofu yëpp nag conseil constitutionnel daal di validé à la surprise générale ñaari liste yooyu nga xam ne experts yu bëri jàpp nañu ne dañoo violé de manière flagrante li euh, disposition code électoral bu seen article yooyu na bëgg ne ay cent soixante-deux nangam nangam mhm. yooyu c'est trop compliqué à dire mais euh, loolu euh, ñu bëri jàpp ne ñaari yoon ñaari yëf la mën a fuul mu nekk un verdict d'apaisement mhm. ou mu nekk benn deal benn combine bari ni ko waa à Sénégal waxee entre Yewwi Askan Wi <laughs> ak Benno Bokk Yaakaar genre je te laisse passer mais tu m'amènes avec toi donc ñoom ñaar ñëpp ñu ñu ñu ñu gëmm. Mm-hmm. bàyyi la ñu ñu jàllandoo. Mm-hmm. ainsi suite donc yow sa xalaat laa bëgg a xam juriste bi ak homme politique bi nga waxal ñu ban jàngar nga am ci loolu nga xam ne moom la conseil constitutionnel joxe. rappelé nga sànq euh, Aïssatou que euh, ci membre fondateur u Askan Wi laa bokk. Mm-hmm. le 2 septembre 2021 bu ñu koy lancé dañ maa woo dox ko sama frère Ousmane Sonko dafa ñëw bi sama kër. ne ma vraiment après ba mu ma réconcilier ak sama frère Barthélemy. Mhm. ne ma ni ngay défendre tout ce qui concerne la nation le Sénégal moom rek ngay gis bëgg sa réew. Mhm. gëm sa bopp. bëgg naa daal ñu bokk ànd ci li ñuy naan yeewi askan wi. Mhm. ma consulter suñu parti. mu am un peu d'équilibre. mais finalement la majorité l'a emporté pour ñu mën a dem ñu dem fa. je pense que bu ñu nekkee ci loo xam ne ñëpp ko bokk ci leader yi mu am ay homme de droit defe naa ci leader yi man rek maa ci avocat. Mhm. y' a d' autres dans Yewwi Askan Wi mais ils sont ils ne sont pas euh, leaders mhm. de parti. Mhm. ou de mouvement. li ko doon rafet mooy lu ñuy def yëpp. au moins ñu solliciter l' avis de celui qui est dans ce domaine là. bu fekkee affaire médecine la xam nga du man la laaj. bu fekkee affaire communication je pense que Guirassy ngi fi. ak yeneen ak yeneen. mais kenn mosuma sollicité si dara. kenn kenn. personne. ma ngay wax télé laay waxee. am ñoo xam ne man affaire xol nekkuma ci. man xel lay doxe yàlla def comme ni nga ko wax. décision yi ñu rendre. ci première décision bi nga tudd mooy bi nga xam ne dañoo valider la liste de Dakar. validé donc ñoom bi nga xam liste bi nga xam ne Barthélemy moo ko dirigé. Mhm. ak coow li ci am avant. Mhm. ñuy tiirante seen biir du bii laa déposé dañ ko traficoté non non non non kee ko déposé man déposé dama la abal caché abaluma la caché. Mhm. loolu mooy ne c'est un charivari benn affaire boo xam ni. bu fekkoon ñaari nit ñaari bët ñoo ko liggéey. juróom benn moo ko am na coalition bu nekk fii bu tudd Aar Sénégal. amuñu benn problème kenn benn problème parce que ñoom dañoo toog. lu bokk. Mhm. di koy peccoo mais jël affaire yi jox ko benn nit. te man mii nekk membre fondateur joxuma mandat kenn. Mhm. consulté wuñ ma sax pour laaj ndax war nañ ko defee noonu. ah xam nga ñi bu ñuy xeexee xol. Mhm. man mooy xeexee xel duñ ma romb. dëgg mooy mujj. ci ci laay dëkk. may fekk fa la may bàyyi. décision bi nag conseil constitutionnel rendre c' sur la base d'un vide juridique. il faut que sénégalais comprendre ko. le vide juridique lan la. lan la mooy bu ñu nekkee ci état de droit. lu ñu terewul. permettre dagan na. ok ma répété ko. lu ñu terewul expressément bind ko. dagan na. tout ce qui n' pas interdit est permis boobu ñu xoolee loi électorale bi code bi. xooluñu foo xam ne dañu ne en tant que bu amee démission. Mm. mënuñu ko remplacer ban texte moo koy wax. génnewuñ ko conséquence de jaar fa ne lu ñu interdirul donc duñ koy permettre. donc on vous permet de régulariser mais dans le délai. délai bi mooy lan. dañu ne mandataire bi da ci fal. ñëw nga fa la 11. xam nga le 8 la ñu déglu ba déposé. donc dans les ak sa huissier bëgg a ñu bañ la ko donc constaté nga ñëwoon nga. dans les délais. Mhm. gis nga lu mu def noonu pour ñu liste Dakar bu ko defoon hors délai du ko mën def. irrecevable donc si dans les délais la ñëw prouver ko bëgg a changer loo xam ni loi bi interdire ko conseil constitutionnel la ce qui n'est pas interdit est permis mooy mais mais comme mënoon aussi euh, parce que am na ñu ne euh, moom ñaari góor euh, mhm. la doon changer dafa waroon dugal aussi ñaari góor waaw loolu tamit il faut que les gens fassent attention mhm. le texte dit bu ñu chambouler l'ordre mhm. je pense c'est l'article 179 bu ñu chambouler l'ordre mais waxuñu même sexe. ok ok. gis texte bi gisuma ko. ok mooy bu dee onze douze dañu ne rek boo dindee numéro trois foofu ngay dugalaat nit. ok nit la ñu wax. waxuñu góor wala jigéen. ok ok parce que les textes il faut quand même ñu koy interpréter. bu fekkee ni dafa clair. Mhm. ñu interpréter ko noonu. Mhm. Euh, jama tamit mu amaat <laughs> vir juridique sur autre chose mhm. euh, ñu interpréter autre mais le yi c'est précis conseil constitutionnel amoon na possibilité interpréter autrement aussi mais dafa ne je me place si loo xam ni kenn terewu ko donc dagan na. ok loolu moo tax. Mhm. Euh, Barthélemy Diaz. Mhm. ñu sauvé ko. Mhm. ñu sauvé ko. parce que ñu sauvé ko ndaxte yow bokk nga ak euh, lim bu takku ci wax ma rek sax si di nekk yow askan wi jàpp ne Barthélemy Diaz contrairement ak moom ba mu ñëw di di di di di di assiégé euh, ñële waa waa direction des des élections que. Euh, waaye yeewi askan wi euh, leader yi en l'occurrence xalifa Sall ak Ousmane Sonko ñoo ko tendaloon piège fexe ba exclure ko ci. Euh, ay sa mm. la woon bu dëgg jotee noppi sikk la. Mm-hmm. te loolu lañ ma xamee Sénégal. Mm-hmm. gis nga guerre biir taxaw. Mm-hmm. warul répercuté wu sur yeewu askan wi. waaw ah, kon taxaw dafa am guerre. mondial. ànd kan ak kan. entre clan yoo xam ne Khalifa Sall ñu ànd ak clan yoo xam ne Diaz ñu àndal parce que Diaz moom yàlla moo ko may dara. te loolu élection locale yi ba mu ñëwee bëgguñu woon mu nekk candidat il a boudé ne. damay nekk candidat par force. par mm-hmm. force bi moo boobu. waaw lu ko ci yokk. mënoon naa ne damay nekk candidat. Mm-hmm. mais par force mooy am na ku taxawoon ne ko doo nekk candidat. waaw dafa forcer le passage. Mm-hmm. yàlla may ko lu mu koy may. yàlla dikk na jox ko lu ma koy jox. ñu ñëwaat boobu waroon na yeewu nag. waaw lii ñëwati. ñu naan ay experts ñoo ko defar. ci élection depuis temps socialiste. commençant par nga gis juróomi góor ak ñaari jigéen yu toppante. nga te mënoo ko gis. y a quelque chose qui ne va pas. oui gis nga Barthélémy Dias mu ñëwee devant la DG. man a suis très réseaux sociaux. ba ma ko gisee ak xabtaan bu muy puusanteeg di kii. nga xam ne kii xamul lu xew. Mm-hmm. parce que lu mu dégg mooy lan. Déthié ne du liste bi laa déposé. Ah, mu ne donc dañ ko changé. waaw dañ ko ndax waaye ba mu déggee ñaari nit ki. di wax Saliou Sarr ak Déthié. waaw mu xam déggatoo de déggatoo Barth ba léegi. ba tey waxagul. ba léegi waxatul parce que comprendre na nag. waaw te te te ma ngay préparé ay bomb. ah parce que Barth moom noppi Barth. tontu dafa no no waaw noppi Barth moom musiba la. <laughs> mën na xeex xooxu boppam. waaw mos na jóg xeex xooxu mais ce qui important dans cette décision là mooy la liste de Dakar a sous l'angle aussi du droit. C'est vrai que ça apaise après. Ouais. Mais sous le pur de droit, dans un pays de droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Mais, mais, mais quand même, euh, euh ça, ça on l'a bien compris. Ils en ont profité aussi pour... Euh, voilà. Maintenant, euh, euh, pour en revenir à Yao... Ak, mais c'est deuxième décision, oui. Wow. Nous sur le parrainage wow. de Benno. Wow. Faut que nous encore. Nous avons consulté, nous savons. À précipitation. Et eh oui. Hmm. comment ñu nekk ci coalition boo xam ni du benn avocat rek moo fa ne coalition mais ci leader yi. fu ñuy toggee yëf yi laboratoire bi. Mhm. y a un avocat ki s'appelle maître Diop en toute modestie. Mhm. ñu jël di attaquer décision boo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar. Mhm. sur le trop de parrainage. di attaque la commission chargée de collecte des parrainages au lieu ngay attaquer le ministère chargé de l'organisation des des élections. ñu ko ñëw foofu la ñu juumee. conseil constitutionnel xam nga décision boobu dafa sensible. parce que bennoo la waaw bennoo la. dafa ubbi rek gis ni ñu saisir rek mu tëjaat eggul sax si jurisprudence gàkku. parce que lii dañu ci doon xaar mu egg si jurisprudence gàkku. dafa tëjaat ne irrecevabilité vous avez mal saisi bennoo rëcc nga foofu. mais bon xam nga ne tamit euh, le ministre de l'intérieur dana dana jël chargé des élections dana jël décision pour wax ne liste définitive yi ñu ngi nii. Hmm. su boobaa gars daañu attaqué waat. le débat va recommencement. ci côté yooyu te lii yëpp mënoon a ñàkk. loolu mooy wane ni ñu defaree liste yi. war nañ ci boole gi ñi. c'est parce que calcul politicien la ñu bëri ne dañ ne calcul politicien copinage. Euh, euh, euh, coquinage ah coquinage. looloo ko indi si copinage coquinage ak yooyu ci laa bëgg ñëwee ci diin. Mhm. mooy ci yeewi askan wi. parce que benn ba léegi nii màttanteeguñu fësagul mais yeewi askan wi. Mhm. Euh, am na ñaar yoo xam ne génn na mooy ñu bëri ñu jàpp complot contre Barthélémy Diaz pour éliminer liste euh, Dakar bi mhm. ak aussi complot contre yenn identité remarquable yi nekk ci biir yeew yi comme yow euh, yow sa bopp évidemment ñeneen ñi génn nañu def seen conférence de presse wax li xew ci biir mhm. euh, investiture yi nu mu demee Khalifa Sall ngeen ko joxoon Khalifa Sall ne presque euh, bu ngeen ma bu ngeen bu ngeen ma dénkee da ngeen may wóolu kon amul kenn waaw lu ma neex def daal genre presque euh, mais yow génn nga nga pointe du doigt Khalifa Sall mhm. ne joxe ñaar Sonko comme comme complice am nga ni xalifa nga wax loo xam sénégal yi ñu bëri xam yoon mosuñu ko dégg mooy que xalifa en réalité xalifa Sall dafa am benn haine bu mu la téye boo xam ne yow xamoo ko woon te lim la indalee mooy euh, am yoo euh, ci moom yi mu def mhm. en tant que homme politique yow juriste bi nga doon ak dëgg bi nga gëm nga wax sa xalaat moom loolu la la mere téye foofu laa bëgg nag maître euh, ma doon bëgg expliquer lu xew yeewi askan Aïssatou fàttewuma ko wala xawma ma ko xamoon naa ko mhm. mais comme ni ma lay wax sànq rek mhm. man ku ma xam dëgg dëgg de près. Mhm. xam na ne jàpp ma dara sama xol si rien du tout. Mhm. dama ciy wax mu jàll ma dem ci leneen. Mhm. parce que sama xel bi moo ma gënal may wax samay affaire xol. tout à fait. tu deviens haineux. et rancunier à un moment donné. du ma ko def. comme ni ko rappelé yàlla lu mu xas bi bind. du doomu aadama mooy ñëw bëgg a yàq sa carrière professionnelle. ou politique ou autre chose. man je suis pas politicien je suis politique je m'intéresse xew sama réew. ci affaire caisse d'avance bi yéen xam nga bu ma toogee ci plateau seen question yi day politique day juridique ma tontu si mhm. bu fekkee ni jël nañu këyit facture boo xam ne dañ ko classé woon mhm. tëggaat ko mhm. di si commandé ceeb fictivement parce que amul benn livraison autorisé Khalifa Sall mu koy def par par exemple la mairie di ci génne million par jour. Mm-hmm. illégalement. di ci génne donc trente million par mois. Mm-hmm. illégalement. c'est une escroquerie. Mm-hmm. tribunal ñëw. je pense le mois de mars deux mille dix cour d'appel ñëw confirmé. la haute juridiction de ce pays ñëw confirmé. loolu bu amee te man ñu woowaat ma sur un plateau di ma naan. est-ce que Khalifa Sall mën na bokk ci liste yi. Mm-hmm. yéen ngeen laaj ma ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ma dëgg moom a rey te moom la yàlla bëgg. j'ai bu fekkee nit condamné nañ ko. sur la base article L vingt neuf. deuxièmement. nga am condamnation pour escroquerie à une peine ferme un point là-bas. mënoo nekk ci liste yi mu nekk un mois mu nekk deux mois mu nekk trois mois. surtout pour histoire de deniers publics mais à partir de là 14 mars bi passé gis nga seen conférence de presse bu ñu def moom ak sama xarit Sonko. te ma nekk ci conférence de leader man war a xam war a yëg war ñu war a ma consulter. lu ñëpp bokk dañ koy diisoo. man daal damaa jékki-jékki taal sa télé bi rek gis daa ñu nekk candidat par force on a fait une condition. ma ñëw toog seen plateau. ngeen laaj ma ndax ma ne ma ne non attention. attention d'autant plus que dafa am chart bu ñu signé Yewwi Askan Wi mm. accord cadre pour bu ñu ko créer mm-hmm. ak charte bu ñu créer mm-hmm. charte bi dafa ne képp koo xam ne mënul dañoo jël ay droit am ak ak yelleefam mm-hmm. sur le plan politique hypothèque ko mooy mënutoo voter mënoo kii surtout pour des raisons politiciennes bu ñu xasee ba gagné assemblée nationale bi daañu présenter des projets de loi restaurant et garantissant l'ouverture démocratique notamment en permettant à tous les leaders politiques de jouir de leurs droits civiques et politiques arbitrairement confisqués par le pouvoir en place moom la mooy lan daañu leen amnistie mooy ñoom ñoom ñoom Yewwi Askan ça c'est grave ça bu ñu faloo bu ñoom képp daañu def de sorte que képp ku nekk ci ñoom du baa ñoom ñëpp mu ñoom Karim ak ñëpp koo xam ne des choses comme ça koo xam ne arbitrairement la arbitrairement. daañu la am ne def de sorte ñu jël majorité assemblée nationale arbitraire mais moment boobu la Khalifa Sall mën a ñu mën ko dindi mais pas mm-hmm. avant. ba ma ci waxee en pur droit kenn tontuwuma Sénégal. Mm-hmm. moom dafa toog ci roqam ba ñi ñu jox ko liste bi. Mm-hmm. ne ko léegi nag yaay defar yëpp. man ma ci. kenn consulté wu te mandat su ko joxee nit. dafa am obligation de reddition de compte. tout dégg naa nag euh, benn ci fedda yi nag bu tudd Moussa ñëw fii ci soir d'info avec Binta Diallo. Mhm. di expliquer di naan sama sama mentor kalifa di nga ko jox mandat de proposer une liste. Mhm. waxul mandat de déposer de. Mhm. de proposer ak ñu la yónni. ñu yónni la pour nga defar list mu daj sa loxo nga ne ah Moussa Diop moo doon naan man mënuma dem. parce que tel tel moom maay defar liste léegi du ci bokk. dossier am bu la nga dugal sama bureau. li may wax mu may xool xam na li may wax parce que comment on peut comprendre waxuma au delà de ma personne parce que man du ma bàyyi salaire cinq millions. ci wax dëgg may dàqee ay un million trois loolu du man man réew mee ma ñor. ay satu donc am na ñoo xam ne ils étaient dans le profil. pour pouvoir être candidat mais profil yooyu waxatuñ ko léegi lan la ñuy wax. Mm. daw làqu yeeg les petits amuñu xaalis amuñu nit. qualité la soxla woon c'est pas la quantité ak des gens yoo xam ne bu ñu waxee sénégalais yi déglu leen pour ñu mën a influencer le vote critères yooyu yëpp teg nañ te loolu la tegoon pour jox ko xalifa pour mu defar muy def ay règlement de compte parce que naa ci caisse d'avance bi tey laa ciy gën a wax parce que ko mënoo nekk ci liste yi tey laa ciy gën a wax parce moo loolu mooy dëgg mais bu fekkee du ci bokk au delà de personne comment nga mën a comprendre ay sutu AG jot na ñun leen ñëw leen déposer seen ay casier judiciaire mhm. ñëw leen déposer seen ay dossier ñu def quatre-vingts candidats parce que parti bi ñun AG c'est la qualité mhm. moom la ñu devant mhm. des ingénieurs des électroniciens euh, mécaniciens des enseignants des gens de qualité yoo xam jàng ñu xam nañu fu ñu jëm ñu ñëw déposer quatre-vingts dossiers jël ñu ci kenn kenn kenn personne parce que benn nit a ko doon def règlement de compte dama ne dossier wu AG duggul sax ci bureau dem ko mën ko teg ko fële kii du kii moom gaa am yëpp kenn du yàlla mooy Karim. te di ko dégg ci affaire yàlla mais ñun. xalaat nañu tamit ni boo bëggee def rupture danga nga fay teg les gens qu'il faut hommes ou femmes qu'il faut. à la place qu'il faut. Mm-hmm. c'est pas une question de xëccoo place man du ma place. Mm-hmm. li ma yàlla may. Mm-hmm. may ko keneen lu yàlla may keneen mayuma ma ko. bul jiital sa xol. jiitalal sa xel donc man réew mi ma ñor jël na list bi def na lu muy def coow bu mel nii xam nga mosoo gis Sénégal mosu am man ñi may woo xam nga la ñuy wax mm. xam nga génn naa di wax ci ñii di wax sama wax moo gën a pointu mm-hmm. <laughs> parce que <laughs> xam nga li ngay wax mm. mais dégg nga ma suma critique suma critiqué Ousmane Sonko ne ko tu es complice suma critère xaaf ne ko tu es l'auteur des mhm. est-ce que dégg nga benn euh, sonko booy di ma saaga. déedéet allo non pourtant ñëpp la ñuy saaga si réew mi. parce que dëgg neexul. Mhm. du ma tooñ du ma wax lu ñaw du saaga. Mhm. mais bu dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi. mais mais mais sonko. Khalifa mu jël ay mbokkam ak xaritam def ci biir. ñooñ ñoo gën le juristes que nous sommes. Dame Diop amoon na fa place. parce que daam dama ko dégg keroog muy faram benn benn benn décision de justice. Mm-hmm. nu muy tegee loxoom foofu dinaan tegal sa loxo fii defal ni man ci il a des notions de droit. te am na fulla. Mm-hmm. quelque plus li ñu koy li ñu koy wax mais ne daam amoon na place am foofu. Mm-hmm. ko fa. deuxième jël say xarit rek teg fa. ne damay wax lu leer. ban mérite la gën a am un gars comme Moussa Diop. Mm-hmm. le modestement. Mm-hmm. un comme nu mu tudd Jokel Gajaga de Kaolack toujours taxaw. Mm-hmm. une personne comme Aminata Mbaye. quatrième place taxaw. une personne comme Ngone Fall taxaw. une personne comme Moussa Taye bi ñëwoon fii du wax ne maa ngi ci liste bi day wax leneen dix-neuvième place une personne comme Moussa Tine beaucoup de respect pour lui mhm. mais moom dafa démissionné woon mhm. ne ba docteur Babacar Diop bu Thiès du ko jiite mhm. mu démissionné yeewu yeewu Babacar Diop yàlla lu muy def jox ko pouvoir une semaine avant yi mu euh, Khalifa réintégré ko moo ko wax ci presse bi de maa ko liir jox ko place ñu ne Moussa Diop yow doo bokk ki toogoon fii ba sonn di cotiser man nekkuma. kaa ah, di cotiser. ñëppay cotiser man suñu cotisation mot na suñu taxawaay mot na samay leet na responsable AG Jotna yi ñu ngi ci fu foo xalaatul ñu ngi ci commission yi. di liggéey mais cotisation yi ñaata la woon par mois la wala par par semaine wala. am na cotisation par mois pour affaire courante yi am na cotisation pour la caution. Mhm. yëpp ñun def nañ ko. Mhm. Euh, nga dem euh, vingt troisième place taxaw. Mhm. ça continue nga dem vingt sixième taxaw Moussa Taye il est de Kaolack. Mhm. Jokel Gasa euh, Gadiaga il est de Kaolack. Mhm. pourquoi jël deux personnes sur la liste nationale ñu toppante. boo joxee ñett seen nit kay parce yaa yor yee fi lu la neex ngay def. jëlal benn fële ñëpp ko bokk. daa nga jaxase li may wax lu leer la. waaw liste bi nga yor nii. moo nekk nii ñu ma faram fàcce ko la liste officielle la. Mhm. daañu ko officialiser. fan la ñuy dem euh, Aïssatou. Mhm. gis avocat gis ku xam koo xam ne du question xam sax mais da ko won mhm. day xeex ci lu dëgg. ñu dem fële ci étudiants yi étudiantes yi. kolodel pour xale yu ndaw yoo xam ne mataguñu sax nekk député. di jàng. ko dugal bàyyi fi ñu xam. ba yëf yi am. ñu daan dañuy changer liste bi. fàtte ni ki ñu indi mu ngi déjà ci suppléant yi nga yokkaat ko ci titulaire yi ba bennoo a ci ceeb loolu moo nar a indi problème dans quelques jours. parce que boobu tamit kenn ponoon. kenn kenn kooku conseil constitutionnel kenn. kenn tontu te boobu c'est très sensible. c'est mais loolu bu ñu ñëwoon di laajte avis di ñu toog di diisoo. nit mhm. dañ ko gis ne ko attention. Mhm. cette dame là madame Touré ou Anta Touré mbara remplacer Fama Mbengue attention elle est déjà sur les suppléants. mënul nekk encore titulaire day indi coow. te dëgg bu jotee noppi sikk la. Mhm. loolu la du question place. Mhm. quatre-vingts personnes déposées dans une liste avec des de qualité parce que qualité la ñu waxoon profil. Mhm. ñu nem naan di ma naan ay daw làquluñu foofu tamit naa ci taxaw tuuti. ay surtout parce que gis naa keroog di 17 mai bi. Sonko moo ko wax. moo ko wax. Ousmane Sonko moo ne ay daw bu AG duggee tey nekk ci membre fondateur yi ci yeewu askan wi Sonko dox na ci lu bëri. su ma juboo ak sama frère. Barthélemy ñu bàyyi. moom moo ko dox. fu ñu toog di def loo xam ne sa illégal. contre Moussa Diop dafa waroon ne du fi am. contre AG jot na dafa waroon toog ne du fi am. mais gis na ko xam na parce que boobu mu commencé conférence am lan la wax ne je n'étais pas courant de ce que j'ai décidé c'est une faute politique. Mhm. ci côté waa Pastef. mais fu fekkee xamul woon lu ñu doon des comment se fait que Diomaye Faye nekk à la neuvième place. ak kële kële nekk euh, à la onzième place. Euh, jiite euh, liste ba Thiès. waaw dindi fa Babacar Diop dindi Babacar Diop nga danga dugal Diop. waaw te ñeneen liste yi. bu fekkee critère mooy ku perte au local. Mm. Diomaye a perdu au local. Mm. man j'ai perdu au local dans le fief. Mm-hmm. le titre foncier du président Macky mm-hmm. ñoom ku si jaay doole demal Fouta nga jéem a dóor Macky Sall mm-hmm. foofu ko xool noo mënti toll. noo mënti tudd. Mhm. foo mënti dëkk loo mënti am demal nga xool. Mhm. kooku ay gorte j'ai eu le meilleur score de Fouta. ñoo ñoom su ñoom ñemel songu Fouta ah. donc bu ñu nee yi dañoo daw làqu. Mhm. les expressions de Ousmane Sonko. au local man daw ma làqu dama dem. ana ñoom sama tata Aïda Mbodj demoon nañu élection. demuñu sama euh, petit frère. Déthié Fall demoon na élection. non sama tonton Habib. si demoon nañu ah, non. ñemewuñu woon nag. ku daw laaxu. waaw te ñooñu ñu ngi en bonne place. ñoo nekk ci kam ñoo jël lépp partagé ko seen biir xam nga yow askan dafa am benn bureau politique bureau bu ndaw ak seen groupe nekk ci groupe bu mag ba ñu fay décider foofu la. waaw ah groupe bu ndaw bi. groupe bu ndaw ba. mooy décider te foofu taxawu pur Pastef. Mhm. ñoom ñooy ñooy ñooy. ñoom ñooy fële foog mooy laboratoire bi rien ne se décide dans la conférence des leaders. yëpp foofu la. ak ah, bu ñu xam nga fan la. Ah. tableau noir la fu ñuy afficher résultat yi. ak décision ak circulaire yi ak cotiser leen loolu rek ñu fay wax man saa yu ma bindee ci biir je parle sous le contrôle de tous les leaders de Yewwi Askan parce que lu may wax am naa ci preuve lu may bind. ça ne concerne pas ñëw ñu dajee total bi nekk ci orange ci ci autoroute bi ñuy fii la ñuy dem fii li ñuy dem ziara ji fii non wala ñuy cotiser wala ñu def non du loolu laay wax man damay naan lépp loo xam ne ci Sénégal dañ ko war a def lu ñu warul lu ñu warul def ma ne attention. mais mais seen seen kenn du commenté mais seen whatsapp boobu nag nga xam ne groupe whatsapp boobu ay leader ñoo ci bokk euh, day na si ay nit ne dañ doon xas Khalifa Sall naan ay sàccukatu kii ak yooyu groupe whatsapp boobu tamit xanaa foofu te nekkul benn plateforme boo xam ne ku nekk ku am loo war a wax wax ko wax yu ni mel. loo fa wax ñoom dañ koy liir da ngay gis da ngay gis lecture xam nga ni ñuy defee. lecture tu vois très bien que la personne l'a lu personne ne commente. Ah xam nañu. duñ am na benn kilifa boo xam ne ci biir. ci mhm. j'ai beaucoup de respect pour lui. Mhm. ba mu ma woo ba mu ma ko wooyee jot ko. Mhm. xam moom woo ma maa ko woo mais da nañu. man nga pourquoi su ma bindee ci biir groupe bi euh, tonton doo ko lire. du ngeen ko lire du ngeen ci wax. wala du ma répondre man yow ñu tontu la ñun dañuy politique yow da ngay droit. kon sama tonton boobu xam na boppam. Habib Sy la. Kumba kii ki may wax daal xam na boppam. waaw ah, mais man xam naa parce que dëgg. ni nga waxee le droit c'est ce qui doit être lu war a am. Mhm. suñu bëggee def rupture bu jaay sénégalais yi leneen lu dul li fi nekk. mais mais da ngay def lu baax. mais moo tax Sénégal dañ ne finalement yéen ñëpp yéen ay politiciens ay Yewwi Askan benn bokk yaakaar benn finalement. mais finalement loolu lay nuroo. loolu lay nuroo bu dégg nga barki démb. sama frère Ousmane ne lan. Ah, appel à ñoo def erreur. waaw xam nga première sortie bi. erreur ba pare euh, xawoon sax ne ñoom dootuñu bokk. ci yi. deuxième inter intervention. de son frère. faute la wax dans son SMS. faute waaw faute. gradation. Mhm. erreur on la corrige une faute on la sanctionne. oui. troisième ngay waxee loolu ba pare. Mhm. texte yi waaye daañu daañu jox raison par force. Mhm. mooy appel à mooy appel bi mais mais mais loolu euh, euh, euh, évolution boobu dans le discours yow noo ko noo ko noo ko noo ko jàngatee ci Sonko erreur faute. léegi appel à l'insurrection dañ euh, nañ nañ génn xeex bi dañ ko nangu nàngam nangam. man euh, ba mu ma déggee loolu. Mhm. je suis intervenu xam nga sama Facebook moom lu ma ci bind man lu ma woo journaliste damay ah. bind rek gars yi reprendre li ngay gis ñuy wax ci man ah, Sénégal yëpp nga soxla micro wala wala caméra man j'ai mis dedans mhm. du fait se ses propres turpitudes yaa def sa propre bêtise voilà ñun ñoo ko def man ah, yàlla may dimbal bokkuma ci moo gën du man rek on mais bu ñu jël sénégalais yi di leen def ay otage mm. ay canon di leen euh, utiliser si ay affaire yooyu man dama bind ci benn ñun waa agent ne participer pas dem wàcc ci mbedd bi ci loo xam ne ñun ñoo ko def mais ñoom sax ba léegi nii sax ba ñoom dañ ñëwoon seen dem wàcc boobu dañu dañ ñëwoon benn mercredi bee passé la toog waxtaan seen biir jël date dem mais ba léegi je pense ça n'a pas été fait voilà au niveau de Yewwi Askan waaw mais démocratie amu fa ah bon waxtaan amu fa waxante dëgg amu fa gis nga li arrivé nii Yewwi Askan am na ñuy matt seen baaraam man j'ai pas mal pour ça parce que kenn du ma tontu si ñoom mm-hmm. bu ñuy wax duñ ma tontu. je profite de l'occasion quand parce que ci presse lañ nekk. Mm-hmm. ci wax ak sénégalais lañ nekk. man j'ai du respect pour tous les sénégalais ñëpp xam nañ ko je ne marche pas avec le cœur mm-hmm. dafa am benn chroniqueur boo xam j'ai beaucoup de respect pour lui il le sait. bu ñuy nuyonte nii la ñuy nuyonte sëgg pour vous dire que c'est tellement truc mais bu wax dëgg jotee dañuy wax dëgg léegi si suba si laa ko gis muy sëñ Saliou Guèye mu ne ñoom Moussa ay frustré lañu nous sommes des indignés bu fekkee lii la ñu waxoon niñ ko def te defuñu ko boo ko waxul seytaane nga parce que wax euh, du dul bañ wax dëgg bëgguma wax fenn bañ wax dëgg mooy gis dëgg bi wax leneen wala nga gis dëgg bi ne muut lan la ñu préparé woon dans le contrat règlement football bi mooy lan le profil ngay naan dañoo mer dañoo frustré je ne suis pas frustré nous sommes des indignés de ce qui s'est passé loolu mooy dëgg bi. ñu ne euh, président Macky Sall moo toog fee ca pale ba euh, ay tentacules nekk ci biir yeewu askan wi am na fa ay tóob am na ñoo xam ne dañu fi nekk en mission commandée pour rajaxee yëf ya euh, gis nga Farba Ngom laa invité woon dimanche dernier Farba. liste yeew yi ci moom ni nga ko yoree nii moom noonu la ko yoree liste yëpp la ba yor yoraale tamit euh, euh, téléphone am à tout moment mhm. benn message wàcc te tam ñun ba ñuy tourné émission man ak moom di ko enregistré euh, yeewu askan wi ñu ngi woon ci seen conférence des leaders dégg nga farba mi ngi toog maa ngi toog waaw farba ñu ngi toog nii ma sama bopp j'étais j'étais extrêmement choqué parce que j'ai jamais vu un truc comme ça donc vraiment un truc de malade quoi donc on était là maa xam ñu ngi émission Farba li ma koy posé question sa dégg ko ndax à tout moment téléphone mi ngi toog yëf yi di sonné di wàcc espèce di daanu mu Farba dama léeral nii tey ñëpp gis nañ ko donc loolu aussi euh, dafay wane ne dafay dafay dafay dëggal ne euh, yeewu askan wi euh, am na ñu ko infiltré am na mënu ñàkk infiltration parce que parce que li Farba wax dëgg la da ngeen di ndax yéen tamit fee Ousmane Sonko tamit am na ñu koy jox ak ñenn ñooy jox information ci benn bokk yaakaar mais ce que je veux dire mooy. Mm-hmm. Euh, ma laaj la d' ci noo gisee euh, affaire topp boobu ñuy wax ne am na ñoo xam ne foofu dañu am benn genre dil ak euh, Khalifa Sall ñëpp nag di jox joxoñ mais dafa am benn dil ak Macky Sall genre rajaxel opposition bi après ma am na et cetera mais man li ma interpellé mooy est ce que tamit ni ngeen taxawalee yeewu askan wi. xam nga ñu ñu bokk valeur ñoo mën a ànd en tout cas hmm. de mon ah, point de vue ñu bokk valeur ñoo mën a ànd hmm. xam nga aar yaa ngi wax sànq aar Sénégal hmm. aar Sénégal euh, aujourd'hui euh, les Sénégalais euh, bañ déggee ñi ci bokk Sénégalais yi jaaxlewuñu ndaxte am na ñu am yaakaar si ñoom ndax euh, te gis nga ba ba léegi kenn déggul ay mattanteeg ay gàjjanteeg yooyu. Mhm. Euh, te ni ko docteur Abdourahmane bi waxee keroog ñoom seen biir euh, am nañ tamit ay ay recours ay ay ay ay affaires yoo xam ne nii ñu n'était pas super mais y a pas eu de bruit. Mhm. mais yéen fee yeewu askan wi bëri na aussi ni ngeen àndee. ay suppu kànja boo xam ne kenn xam suppu kànja bu dog boo xam ne kenn amul kànja ba baaxul ak yooyu euh, donc quand Sonko parle de daw ak yooyu euh, yow xëy na man je ne pense mu nekk yow. tudd ma bokkuma ci. voilà mais bëri na aussi ci biir ñoo xam ne ay daw làq lañu aussi donc questionnement bi mooy. ànd bi ngeen di war a ànd est-ce que maître Moussa Diop ah, pour pour ce qui vous concerne est-ce que bala ngaa ànd ak ñoom xool nga ba xam ña ca nekk ñëpp. ndax lu ma leer mooy majeure partie bi xamoo leen. gis nga c'est vrai que xamante wu wuñu mais yaakaar rek moo am solo dans la vie. Mhm. booy dem ci benn entreprise yaakaar moo la si yóbbu. Mhm. même le président actuel du Sénégal ba muy dem turam daf ci defoon yaakaar. Mhm. APR yaakaar. mais nit dafa lëndëm. la preuve mu la jox léegi rek nañu confection li si biir ci régler ay comptes euh, nit dafa lëndëm te du la ko wax xol lay doxee. mais lu am solo daal mooy dans cette affaire là. que dégg na euh, Ousmane Sonko est sorti pour naan ay tëbëk ak yooyu yooyu yëpp. Euh, moom moo xam moo am ces éléments aussi parce que ni ñu koy informer peut être l' autre côté comme ni nga ko waxee. au niveau de Benno peut être que aussi de l' côté. Mm-hmm. voilà gis naa la keroog nag ak euh, ak ba mm-hmm. ngen di wax sur la réunion de Yewwi Askan Wi boo xam ni. xaw ma juróom benn nit xaw ma juróom ñaari. noo fa ñëw sur 37 c'était loolu tamit c'est ça xam nga bu ñu demee ba muy nekk réunion de. exactement de sept personnes sur trente-sept ñëpp boycotté. voilà c'est parce lay wax rek y a un cercle restreint qui mm. leen toog dëkk bi di bax. voilà ngeen def lu ngeen di def ba mobiliser réew mi yëpp. tooñ di naan damay gagné. damay génne ba pare ba pare du ngeen naxante ñi nga xam ne yéen leen tooñ. voilà ngeen wootante mais toog à 15 heures. Mm-hmm. ne réunion aujourd'hui à 18 heures. c'est comme ça que ça comme ça. alors que a eu des antécédents dama ne groupe ba yeewu. bi ñëpp di ñu teg seen téléphone di xool lan mooy bees luy dugg <laughs> mooy tableau bi lan lañ ci affiché tey. <laughs> tableau bi mais ñëpp tëb. Euh. ne waaw yéen da ngeen yabaate yii lii ñëwuñu reporter leen ko. Mm-hmm. man depuis Paris ma bind ne leen je prends l'avion jeudi soir. jeudi ngeen ko bëgg a def. je mm-hmm. prends l'avion jeudi soir mais du ngeen ko reporter pour demee rek surtout que man mm-hmm. mosu leen ma may autorisation. ma ma ma ma toog. c'est vrai maa ma teg la sama loxo xaw naa fàtte benn élément bu am solo. Mm-hmm. parce que dama sama mbokk Podor yi maa ngi leen di au passage. Mm-hmm. parce que je suis le point focal de Yewwi Askan Wi dans le département de Podor. Mm-hmm. en quelque sorte le patron de Yewwi Askan Wi dans le département de Podor. bu passé bi man maa nekk le délégué au parrainage dans toute la région maintenant. département de Saint-Louis de Dagana et de Podor. ñëw naa dem jëli parrainage yëpp ñëw parce que ñenn ñi naan mais pourquoi Moussa du participer ci réunion yi. xam nga man ci leader yi man maay la seul qui travaille de façon pérenne à l'étranger. Mm-hmm. depuis boobu liy jeexee. Mm-hmm. gor liggéey la xam sama mm-hmm. liggéey ko ay fële la. il faut mënuñu ñëw 15 heures ne réunion à 18 heures ma jël avion ñëw. non c'est pas ma ni leen su fekkee loolu am na ok mais lu gën a am solo mooy allié yi. c'est pas ma personne c'est le parti. dama leen di yónnee koo xam ne doy nañu ñun waa AG. Mhm. mooy représenter ci réunion yi. ah c'est ça amoon de que xam nga ne décision bi. Mhm. une heure avant la réunion. Mhm. la Khalifa Sall jël décision son homme waxuma la coalition. la conférence des leaders la Khalifa Sall def ko ci groupe bi. leader bu fi ñëwul kenn du ko représenté. loolu moom directement ma rek man rek la ko parce que man maa ko demandé. waaw ñeneen ñi. mais pour vous dire Kumba am ndey Kumba sans ndey. Mm-hmm. le PUR du parti politique allié. Mm-hmm. est-ce que c'est le président du parti qui est là-bas. il est représenté. Mm-hmm. sama xarit Ousmane Diallo MRDS gisee nañu barki démb. Ousmane Diallo moo fu nekk. c'est Seydou Bokou moo koy représenté. pourquoi ñu accepter ko ñoom ñaar Khalifa Sall Moussa Diop moom. kenn du ko fi représenté. na ko expliquer Sénégalais yi cette animosité la. man su ma bëggoon participer ci réunion yi moom mënu lu Bamba Fall defoon ma maison sociale parti socialiste du mhm. souviens waaw mhm, daajji bunt bi du dara ci man ñoom xam ne ne man dama tiit dama du ragal wala réunion dafa am mhm. mais dama civilisé rek bàyyi mais loolu moo indi lii yëpp ndekete ay affaire doo candidat ay euh, tu es inéligible rek la caisse d'avance nga wax ci yëpp ñu ne ma lii yëpp su ma ko dajalee yow doo dugg moom waaw moom mais moo tax moom tamit c'est inexplicable il n'a qu'à dire au pourquoi mu bañ ko mu bañ ma ko jox ko pur jox ko NRDS te man nekkuma dama demoon liggéey rek ndeysaan voilà dans sa doole ndax il faut nga dundal sa njaboot <laughs> Maître Moussa Diop émission am li si des euh, bëreetul léegi yi nag <clears throat> on va faire euh, fast track taf taf comme disait l'autre euh, yi locales yi mu ngi noonu législative yi bokkoo te yow comme euh, ñeneen ñi dégguma leen ngeen ne da ngeen euh, leen yeewi yow ba tey yaa ngi yeewi. ba tey bu may wax mooy xam nga tax uh-huh. li ma daloon ci ou bien lu daloon Ousmane Ngom ci PLS. parce que mm-hmm. foofu laa commencé politique. en mm-hmm. mm-hmm. dugg ak président Wade génn rek la PLS est dissous. loolu amoon. maag moom la woon. te sama grand la que je respecte beaucoup mais sur le plan politique wax dëgg moom may rey. je ne commettrai pas cette erreur avec waa AG. Hmm. du man maay décider. ñu ngi ci ay consultations yu très poussées. Uh-huh. te lan la ñu war a décider. ñii di lii ñii di naan lële. Hmm. incha allah semaine bii di ñëw daañ ci génne décision. et Sénégal yëpp xam ni le pourquoi aussi parce que jël décision yomb na mais hmm. expliquer expliciter la décision. waaw parce que Sénégal itam bëgg nañu xam euh, euh, sa avenir politique lan lay doon mais euh, Aar Sénégal est-ce que mën nga leen rejoindre maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp au mm-hmm. passage mm-hmm. personnellement laa wax de mm-hmm. ils savent li may wax ñoom ñëpp xam naa leen en dehors même de la politique ouais, la politique aussi il est arrivé ñuy waxtaan sur beaucoup de choses mais jusqu'à rejoindre euh, am nañu doon wax sax ne man amoo sama place fii la laa fii def mooy naan ay suppu kànja yooyu mais yaakaar rek moo ci nekkoon te moment boobu ñu koy lancé y avait pas art demee na nii daañu jël suñu responsabilité. mais vraiment euh, fekkee nii li ñu war a jaay pour dindi li fi nekk. nar a fi teg lu lu pire. autant autant fi ñu fi nekk. <laughs> loolu la Sénégal yi di xalaat alors yéen a fas euh, tag laasana nga may deux minutes alors euh, Dakar dem di wax naa ko sànq. yaa ngi ak ñoom contentieux on a suivi dans la presque que gagné nga sa procès contre ñoom. ñu war a fay ay indemnité de départ de enfin euh, ñu toll ci quatre-vingt-dix millions euh, je pense que euh, que Dakar Dem Dikk dafa def dafa def appel loolu bëgg naa nga wax ñu su tuuti rek mais surtout bëgg naa dégg aussi ci sacrifice yi nga consentir quand même en tant que directeur général de Dakar Dem Dikk defe naa Dakar Dem Dikk bëri na woon ay ay ay ay DG yi fa jaar mais yow Sénégalais yow lañu gën a jàpp parce que bu weesoo ni ma waxee rek ne euh, ragaloo dem communiquer dem si média mii miinante ak ñun ñii euh, mais jël nga tamit ay da posé ay acte fort très souvent nag acte yooyu euh, xëy na pour jàppale sa majorité la mais Sénégalais yi comprendre et puis am na ñoo si critiqué ba jiital ci benn mooy fii nga ñëw peinture bus yëpp marron beige. Euh, euh, loolu coow jóg nga ñëw jàkkaaru Sénégalais yi euh, joxe sa argument et tout après abri bus yi aussi même chose marron ce qui est quand même aux antipodes de évidemment on me dira que Wade tam moom fi nekkee. la permanence <laughs> voilà la permanence mais surtout la permanence ci laay ñëw. Mhm. permanence bi nga ñëw terrain Dakar Dem Dikk quand même maître Moussa Diop. Euh, euh, nga def loo xam ne ñu ñu vraiment euh, ak ni ma la xamee ci dëggu ni nga ñemee vraiment orthodoxie dëgg beeg yooyu ngay juriste et cetera moi je n'ai j'ai jamais compris comment waaw naka nga mën a fexee ba jël lu dool noonu dooy ne yow nga Dakar directeur général Dakar Dem Dikk nga jël patrimoine Dakar Dem Dikk hmm. xaw ma da nga ko jaay xaw ma jaay mais hmm, jox ko hmm. c'est important voilà jox ko euh, sa euh, sa fi nga bokk mouvance président jox ko président Macky Sall. Mhm. ba tey mu def ko permanence nationale. Mhm. kooku je pense que c'est la première fois en tout cas euh, ma dégg lu mel noonu fii Sénégal te les gens n'ont pas compris man tamit émission bi léegi mu jeex mais j'aimerais bien nga expliquer Sénégalais yi est-ce que suba doo ci am du am retour de bâton ak tamit yow dëggu bi nga bi nga wan Sénégalais ñu gëm ko bëgg la ci. loolu comment un truc pareil a pu être xam nga bu ñu bëggee bu ñu bëggee chaque fois ñu naan Sénégal day dellu ginnaaw. Mm-hmm. wala fu mu toll woon avancé wul. il faut que ñu avancer parce que les textes le droit il faut que ñu koy appliquer et non chaque fois lu xew rek ku nekk jóg na ne expert la di wax loo xam ne maîtriser woo. Mm-hmm. man lépp lu may def ci àdduna. sama formation bii nga xam ne moom laa am mooy lu war a am mooy le droit. ce qui mm-hmm. doit être moom laay jiital attaqué nañ ma ci. mais oui attaqué nit ma ci. Mhm. mais ku ma attaqué reculer parce que dama ko teg ci yoon. nañuy dañuy def yoon dañuy def yoon. parce que mhm. ñuy teg yoon. Mhm. képp koo xam ne xool nga affaire ni ñu ko defee xam nga ne ci yoon li nga ko teg. yëf yi man dofaguma di jël alalu askan bi. di ko may Macky Sall. dofaguma ah kon mayoo ko. <laughs> Eh, mais mais mais amul appel du am musul am xam nga tax mais mais amul appel d'offre maître. ma ne mhm. ma ne dans ce truc là xam nga appel d'offre. Mhm. c'est quand toi tu dois faire sortir l'argent. Mhm. mooy marché. nga ni bon bëgg naa ko ma livrer carburant. c'est toi qui paye. le fournisseur mais c'est pas ça. ça c'est le gars qui te donne qui te vend l'argent. qui te donne l'argent parce que da nga jaay benn suuf. gis nga yëf yi di nga ko def dans la transparence terrain ba ñett la woon. donc pourquoi ñuy focaliser wu rek ci benn société benn entre benn benn association. Mhm. privée mooy parti politique. Ah, bu ñëw jënd déglu parce que am na benn banque aussi société privée. Mhm. moo njëkk jënd. kenn waxu ci ba léegi. mais bi ma gën a fës voilà mu ñu parce que Sénégal mooy loolu rek dañuy wax rek euh, mën nañu lu am lu nekk mais wax moom duñ ko ñàkk <laughs> ñetti terrain la ñetti terrain yëpp jaay nañ ko. Mhm. prix bi du sama prix. du prix président Macky Sall. c'est le prix d'un expert assermenté de dire la vérité. Mmh. Deuxième chose, le conseil d'administration, parce que c'était Dakar Dem Dikk, c'est une société anonyme. Mmh. à participation publique majoritaire. ndax mm-hmm. mission service public. Mm-hmm. conseil d'administration mooy autorité wala moo lay refusé mooy sa premier contrôleur. Mm-hmm. dañoo ñëw ne ni dañoo soxla ay moyen parce que état bi joxuñu lu war a jox déggoon ngeen ma ci télé yi may wax. dañu ne kii daañu ko parce que DG buy génn di naan ministre des suñu koppar pour mu mën a fay salarié yi. dafa am ñu ko sañul am. Mm-hmm. amuñu ko sañul. parce que tamit euh, mën naa noon neex naa parce que bu la joxee jàkk ji nga xam lépp dëgg la. Mm-hmm. voilà sàcc ndënd yomb na. foo koy tëddee. ah jamais <laughs> kër gaa ko. Mm-hmm. donc je me suis battu avec le conseil d' administration. expertise règle règle la wuti xaalis. ne ku bëgg jënd à ces conditions la. ñu ñëw jënd ku njëkk banque deuxième APR troisième euh, l' ambassade de Chine. au même conditions. am na ñu si dugg ne peuple di mais boobu ñu yéendoo affaire bi seen avocat dal na génn leen ci parce que xam ngeen ne lii il l'a fait dans les règles mais bu baax nag na mooy yow mayoo ko c'est quand même un xam nga ay chèque de banque lañu lañ ko fay hmm. donc am na traçabilité am ah, fay am na fay am na lépp la fay ba jusqu'au dernier centime hmm. buñ ko fayul woon du ma ko jox personne nga tudd X ou Y ou Macky Sall laa ci yemale d'accord dama ko yëpp d'ailleurs j'ai fait une conférence euh, pourquoi coow li fay balaa jaas di si dugg mhm. par erreur mais coow li dama def conférence de presse euh, city business fii mhm. cinq cent personne ñëw ma jël lépp def ko nii ci écran ma teg chèque de banque yi teg acte notaire yi wat paiement yi virement yi est-ce que chèque baa ngi nii est-ce que déposé nañ ko ci compte dem dikk mhm. est-ce que encaissé nañ ko loolu yëpp ñu ngi si même nañu utiliser xaalis boobu maa ngi am le tableau établi par le contrôleur de gestion. d'accord donc dafa leer nañ. man du ma jël alalu askan bi di ko jox ma sàmb ak ma demb dama doon gérer la chose publique euh, lan laa bëgg a wax rek. ci côté boobu mooy sa affaire maa ngi génn maa ngi sant yàlla. sa procès bi nag. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. Mhm. parce que li ma doon def dem dikk pendant six ans bëri na de pour un des jeunes. Mhm. six ans dafa bëri. def naa fa lu mu faroon def. Mhm. peut-être que l'imperfection est humaine am na yoo si si dërëm manqué woon du ma génn teer Sénégal ak li ma waxoon. du ma fi génn di may tëj. fa lay jaar na la tepp pour noppi loolu. mais juróom benn at gère plus de soixante dix quatre vingt milliards. te kenn mënul la dara. am na lu tax. bu ñu la joxee yëfu jàmbur xamal loo ciy def. bu ma ko joxe woon gratuitement. mën na fekk sax kii ngay tudd moo dind si turam. Euh, ñu def benn rapport IGE ne bon ça a été mal vendu le prix n'est pas bon donc dem dikk a perdu. l' argent ñu jàpp mën ne boo ko laajee avion mu ne. je sais pas c'est pas moi hein, moi je suis j'ai l'immunité <laughs> <laughs> présidentielle euh, c'est l'association APR qui l'avait acheté mmh. mais mm. tous ku ci attaqué di nga ko gis d'accord léegi euh, euh, ñu xay na émission jeex na carrément mais avec avec le recul da ci woo li nga waxoon ne Ila Touba nañ ko yenu yóbbu ko fële gis nga Aïssatou mm. déggoo benn xalif benn sëriñ di ci wax soo si amee benn nga wax ma xam nga Sénégal dina teel ñu ne damm na man j'adore dem vérifier d'abord même Dakar dem nit day ñu wax ma lii mais il faut ma dem vérifier ma lay wax lii mën nga ko vérifier c'est vrai que taalibe yi man sama soxna bi génn àdduna daaw mhm. murid la ci ndey mhm. murid la ci yaay mhm. ci papa man dama dof ba di ñëw di tooñ man du tooñ am na kilifa gu mag ci boor boobu parce que damay wax ak ñoom léegi dafa dégg naa ne maa gën a nekk seen xarit parce que <laughs> da wax dëgg moo may rey. Mm-hmm. boobu affaire bi ci mu nar a wax dafa dem ne joxal leen ma vidéo bi waaye dégg naa ne vidéo la du du du sax interview oral. Mm-hmm. boobu ñu demee xool mu xool xool biis xoolaat mu ne kii waxul ak ñun. Mm-hmm. dafa ne. fayuñu naar bi xoromam ak lu mu def fii yëpp ci zone bi nga peut être bawol laa waroon wax waruma wax tudd mhm. mais ñoom ñëpp comprendre déggoo benn sëriñ ñëpp ne bàyyi c'est moom bu ñu nee <laughs> mais ñëpp samay xarit la maa ngi profité l'occasion xam di nuyu sama Baye Fall bi nga xam ne mooy Ali Sarr bu Kaolack mhm. bi nga xam ne bés boobu mu xewee mhm. moom ak ñoom Ousmane Diaw nga xam ne seen papa mooy le président national des aveugles du Sénégal xam nga laa lañ def te ci des Mouride des Baye Fall lañu dañoo jël pick-up de Dakar fekk ma à 500 kilomètres ne ma dañuy ñëw nekk ak yow. ci moment bi. je les salue au passage. <laughs> yow xaytu ñëpp nga maître Moussa Diop <laughs> ñu amoon vraiment mbégte euh, émission bi ñu yëgoon bu ñu mu def deux heures temps ndax euh, li ñu war yow bari na te invité bu intéressant nga nga xam ne déglu la euh, c'est c'est juste enrichissant en tout remercier la bu baax ci ni nga <coughs> transparence ak euh, dëggu bi nga waxtaanee ak sénégalais yi sincérité bi euh, bi nga xam ne mooy euh, transparent si si say si say wax di di di ñaan yàlla nag te leer na ma ne noonu la nar a demee mooy sénégalais yi déglu nañ la bu baax ak xel. di la si amoon na caisse d'avance de waaw laalu ma ko. amoon na caisse d'avance ah oui am na caisse Euh, les comptables Dakar dem xam ne li may wax. ñaata la ca semence bi. non du montam c'est pas la peine ko yore boo siiw pas t'exposer. parce que boo mhm. xam ne moom nga seqal bu da ngay dugal baaraam mu jël sa loxo. waaw loolu la <laughs> te kii moom du maye dara alors maître Moussa Diop ñu bàyyi la nga tàggatoo ak Sénégal yi la doon teewlu. donc maa ngi gërëm Sénégalais yëpp j'espère que li ma fi wax te mu jógee ci xel. Mhm. jógewul ci xol. Mhm. duñ ma ko ci jàppee. parce que euh, wax da wax dëgg bu jotee rek noppi si këram. bul tooñ bul wax lu ñaaw bul saaga. voilà loolu moom xamuma ko sama éducation bi ma jot. di nuyu ñëpp di sant ñëpp. Euh, xam nga ne nag euh, nu mu tudd encore yàgg nañ wax léegi Touba maa ngi waaj a dem. dem seeti xalif bi. xam naa ça va être très médiatisé. pour ne pas trop médiatisé. mais ñoom ñëpp. Mm-hmm. boobu ñu gisee yëf yi xam nañ ni. Mm-hmm. Moussa tooñul. Mhm. te yëf yi dafa gaaw a jeex ba ma waxee. di sant yàlla parce que loolu mooy dëkk aussi. dëgg te bu ñu bëggee rupture Sénégal il faut ñuy teg les gens qu'il faut. à la place qu'il faut mhm, exactement. man musuma am diplôme mu transport. Mhm. ba mu ñu ma nommé fii première texte yi moo daan que fait un avocat dans transport. mais yàlla dimbale na ma. fulla ak fayda. gis lu baax. disponible. man ku ma woo jot ma même numéro bi laa yore ba ah, léegi. man maa waroon woote inconnu gisoo. wallaay wallaay mais ñi ñi ñoom mooy inconnu te bu dul woon émission bi ci prendre téléphone. la première da ngay décroché la première sonnerie. mais noonu remercier bu baax parce que euh, maa ngi yow xuloo nañu xeex nañu waaye du ñu jiital suñu xol. wallaay dëgg suñu xol. Ah, la voilà vraiment xuloo nañu xeex nañu. waaw loo xam ne parce que keroog ba ma la gisee yow ak Maodo Malick ngeen di sama xuloo waale bi lekk na sama avance foofu mu ñëw. waaw mais tey la ko yàlla tudd waaw tey la ko yàlla tudd. te kontaan di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Mm-hmm. Euh, di sant aussi waa AG Jot na xam ne confiance bu ñu ma jox. depuis 2009 te kenn mm-hmm. dégguma sur la place publique parti boobu amul ku ci nar a coow sax. boo génnee yaa des. parce que. damay jubal ah, du mieux que je peux parce que loolu mooy àdduna bu ñu la joxee parapluie boo xam ni mm-hmm. ñëpp ñoo war a nekk ci suuf mm-hmm. bul def de sorte que ñii tooy mm-hmm. ñii bañ a tooy ñëpp nga fi nekkal man loolu laa doxalee bu ñu ma denkoon aussi ci affaire expérience de la chose publique je pense que maa ngi sant yàlla ci loolu en tout cas ñun moom kontaan nañ trop ci gëm la te euh, euh, je suis très bien placée pour xam euh, sa dëggute ak sa rafet xol parce que euh, man ak yow xuloo nañu lu bare bari bari ay raag yu méttee métti te terewul euh, dañuy wootante waat di waxtaan li ñuy li ñu gisante rek bëriwul mais dinañu wootante dinañu waxtaan ba pënd bi wuree ñu waxtaan te lépp rek euh, Sénégal la ñuy waxtaanee na ni ko bëggee noonu laa ko bëggee te sa constance important te comme ni ma waxee xale nga ndaw nga te ci kàttanu yàlla bokk nga ci ñi nga xam ne man de su ma sañoon Sénégalais yi gën leen bàyyi xel ndax. fu réew mu toll dañoo soxla ay njiit yu seen loxo set dañu soxla voilà et c'est important voilà c'est très important et kontaan naa trop euh, ci euh, dalal la ci émission bi di ñaan yàlla aussi euh, sa yoon gën a leer gën rafet ce ne sera que tout bénéf pour le Sénégal te mu jig Sénégal mu jig Sénégal loolu loolu am na solo ñuy gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di jiital comme d'habitude rek euh, sama doom ji ma maman Arête Diallo borom Yeta Beauty Moussa nga bindal ma ay yëfam ci suuf euh, ci make beek beeg coiffure beeg yooyu yëpp moo ma euh, di nuyu nag ak gërëm bu baax baax sama rakki yi. Euh, Maam Dorine Guèye Jeewo Guèye borom Fandi design ña nga foofu ca Yoff Océan ñoom itam adresse bi dañ ko dugal ci suuf xam nga ne ñoo may defaral sama tenue di nuyu ñëpp euh, gis naa nag ci région ba nag euh, gis naa fa Laasana gis naa Seydi Jamal Seydi Jamil mi ngi fa woon gis naa fa Dia ci lumière yi gis naa sama xulóowaale bi de longue date Pape Daouda borom son yi gis naa promotion gis naa kara sama rakk jooju ci sécurité bi j'espère que fàttewuma kenn décoration bi def naa ñoom Mansour la ak ñoomin seen fifi euh, ci retouche euh, make up mais comme d'habitude rek euh, Moussa seen ci montage bi face to face incha allah beneen dimanche ñuy nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp et puis di leen wax surtout bon dimanche merci beaucoup jërëjëf